asalaamaaleykum samay xarit samay doomu ndey samay genn wàll waaw man maa ngi duggaat pour di waxtaan ak samay xarit yi rek samay doomu ndey yi sama genn wàll yi ah sama mbokku jigéen ñi pour ñuy weccante xalaat rek ndax xel du doy waaw puso bu réer la ku nekk mën na ko for ma ñëw nag tey pour ñu waxtaanee aldanke ak goowe ak ceeb ah waaw loolu mooy nag ndoxal jigéen. ci biir këram loo xam ni waru ko see sori waaw ndax sax weer nag war nga di ko am bu la neexee sax di ko naanantu noonu def ko sa ndoxum biir rek di ko naanantu day raxas biir day tax buy ànd ak sa borom kër di nga am xet gu xam nga te day raxas sa biir boo gisee mbaax ba pare tax noonu deret yu sew yooyu di des ci sa biir bi di mën a boucher trompe wala di indil ay feebar yu sew sewaan yooyu yëpp ah mu daw la farila